jër ngeen jëf mbokk yi topp chaîne bii di vingt 221 diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko coow la pënd ba wureegul ndax ñu ngi xamal ne juste instruction bu premier cabinet tribunal hors classe bu Dakar sëggaat na ci dossier bu ñu mel te mu ngi waajandi sax woolu ki nga xamante ni mooy njiital Pastef nekk kenn wala nekk leader de l'opposition bu Sénégal ngir teewlu ko mën koo déglu ay kàddum ci lu jëm ci dossier boobu nga xam ne bu léegi dégloo ko au fond du dossier ngir nag fàggandiku ci ay jafe-jafe yëngu-yëngu ay événement yoo xamante ni amoon na fi ci yëngu-yëngu dossier boobu niki daaw ñu ngi xamal ne suñuy force de sécurité ñu ngi leen di alerté bu baax a baax ngeen di fàggandiku lu nu mel la ci xibaar ñu ñu wax ne am na ay date yoo xam ne sax ñu ngi koy avancé wala di ko njort ci lu jëm ci woolu gi ñu war a woolu leaderu Pastef boobu di Ousmane Sonko wante fi ñu mel nii mënaguñuy joxe benn xibaar ci benn date boo xamante ni mooy nekk date bi ñuy déglu ki la di Ousmane Sonko ba tey ñi xibaar ñu leen di xamal ne wala ñu fàttali sax ne dossier boobu ay yëngu-yëngu yu mu fi amoon niki daaw ci jamonoy mois de mars ba waraloon fukki bakkan ak ñeent yoo xam ne ron na fii di ay rëcc goo xam ne ñu ngi wootu Sénégal mu ngi koy rëccu ba tey ay doom yu mu ñàkkoon ci yëngu-yëngu yooyu la. ay jafe-jafe wala ay yàq-yàq yoo xam ne amoon na ci ay bagage ay matériel ay place ak nit ñi yoo xam ne seen liggéey yàqoon na ci ba léegi kenn xamul ñu mu toll loolu tax na sax ñi nga xamante ni ñoo jiite suñuy force de sécurité muy police wala muy gendarmerie dakkaluñ benn yoon di amal ay ndaje kenn ku ci nekk ci côtéem ngir fàggandiku bu baax a baax ci lu jëm ci dossier boobu bépp yëngu-yëngu boo xamante ni mën naa amal ba tax na ñu ngi organiser bu baax a baax fépp ci Sénégal nga xam ne dossier boobu waraloon na fépp ci Sénégal ay jafe-jafe ay yëngu-yëngu ay yàqu ak ay doomu aadama si ñàkk seen bakkan tax suñuy njiit yooyu nga xamante ni ñooy garantir suñu sécurité jamono jiit nelawuñu benn yoon ñu ngi faggandiku bu baax a baax a baax ngir bañ benn yëngu-yëngu bu yàq mën a am ci lu jëm ci bu ñu woowee kuy di leaderu Pastef di Ousmane Sonko ngir amal audition am ci lu jëm ci dossier boobu ñu ngi xamal sax ne lii di armée bi ci ay sources yoo xam ne am nañ ko bàyyiwuñu benn yoon intervenir su ko jaree ci jëm ci dossier boobu. ci fàttali dossier boobu mu ngi amoon depuis plainte boobu jëm ci Ousmane Sonko ñu ngi ko ameloon depuis mois de février 2000. 21 mu nekkoon kii di aji Sarr nekkoon ab employé ki ñuy wax Ndeye Khady la ci ca Sweet yi nga xam ne moo plainte woon kii di Ousmane Sonko di ko accusé viol ak menace de mort ak ay armes yoo xamante ni nee na moom la ko diitoon ci loole convocation bi ñu convoqué woon leaderu Pastef di Ousmane sonk jamono yooyu mu nekk député mënoon di wuyu ndax dañ mara muuri maraanu kii ne ak kiraayam laata muy dem di wuyu ji ndax moom ab député la indi woon ay jafe-jafe maanaam nga xam ne ay gendarme demoon nañ buntu këram ay militant ak sympathisant dem ne kenn du ko fa jëlee ci noonu la ñu déclenché levée immunité parlementaire am fële ci assemblée nationale wante processus bi amoon ay weerante lool. gannaaw ba nga xamante nii nag convoqué woon nañ ko ngir mu dem wuy ji mu ne day wuy ji jëm yoon wi ngay jaar duma jaar yoon bi indiwaatoon ay jafe-jafe yoo xam ne bëccëg googu kenn du ko fàtte ci Sénégal mu nekkoon bëccëg bu yàgg lool te métti xeex bi diggante ndawi Sénégal ak suñuy force de l'ordre ñi ngi ñaan yàlla mu nekk lu ñuy fàttaliku waaye bu mu nekk lu ñuy dundaat benn yoon xeex yi di woy fukki doomi Sénégal ak ñeent mbokk ñàkk seen bakkan ay biens yoo xam ne attaqué nañ ko yàq ko ay nit ñàkk ci seen liggéey ay nit am ci gaañu gaañu yoo xam ne ba léegi am na ci ñoo xam ne daanaka seen yaram amatul njëriñ ba tax na woo gi nga xamante ni ñu ngi koy waaj woowaat kii di leaderu Pastef di Ousmane Sonko waral suñuy njiit nga xam ne ñoo yor lépp luy suñu kaaraange muy police muy gendarmerie di daje di gisee saa su di waxtaan nga xam ne ñu ngi xamal sax ne ci fan yi du ñëw lu yàggu dara dina ñu jébbal nga xam ne mooy plan d'opération maanaam plan bu jëm ci nu ñuy encadrer mbir moobu convocation kii di président Ousmane Sonko ngir nekk jamono ji maire bu Ziguinchor ngir audition am ca nam waree te bu ci benn jafe-jafe wala benn yàqu-yàqu am.